salon boobu toll na euh, am na benn benn benn benn benn popularité popularité tey parce que ñëpp a ngi ciy wax pourquoi ça vous savez la première question que je me suis posée mooy dama ne mais est-ce que dem na fa est-ce que ousman Sonko dem na ci salon de beauté bi tudd Sweet Beauty pourquoi nga posé wu cette question da loolu étonné pour benn personnalité bu mel ni Ousmane Sonko di fréquenter genre les salons de massage yooyu wala. mais parce que c'est un salon mais ce n'est pas un salon de massage par rapport à ce qui a été dit rappelez aux Sénégalais que Ousmane Sonko dafa am lu mu wax dafa ne moom bi mu nekkee xale dafa feebaroon je ne savais pas qu'il avait des problèmes de dos. ñu bari ñi ko jege il paraît que xam nañ ko mais man comme jegewuma ko mënuma ko woon xam effectivement hier bi mu waxee ci télévision bi Sénégal yëpp dañu dégg li mu wax mooy dafa am problème mu doo yàgg na ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko toppatoo ci au niveau des médecins des kinés et cetera pour que mu mën di ci am jàmm parce que des fois ay douleurs yu metti la ci yaramam donc finalement d'accord wax na processus bi fi mu jógee yaayam bi mu nekk xale euh, euh, graisse u graisse u graisse u jaan xawma lan serpent et cetera euh, yi ñu ko daan tof donc après mu màgg mbir mi di ko sonal après finalement mu dem ci ay kiné dem chez un ji dafa voyagé après mu dem euh, euh, quelque part au ci suufu ko riche bi ci benn institut bu mag boo xam ne euh, je crois que moi j'ai pensé que ni kii moom moom institut boobu soit kii la la la Rose Wardini là mm. je crois que moom moom affaire bi man c'est ce que j'ai compris mm. mais c'est à confirmer nee na bi mu demee foofu affaire bi cher trop ay deux cent mille francs par un massage puisque dafa am benn chinois foofu mais bu ko def massage et eh ben après ça lui xam ne lii mënul continuer si le renseigné renseigné woo ñu ne ko am na béréb boo xam ne mun nga fa dem béréb boobu mooy suite suite beauté suite beauté boob bi mu fa demee nag nee na vérifié na tout euh, euh, euh, ndax ndax ndax c'est une c'est un institut légal et cetera mais apparemment euh, c'est légal mais est-ce que véritablement c'est des professionnels ça c'est autre chose parce que finalement c'est un salon de beauté qui pratique du massage mais tonifiant et vivifiant je crois que loolu concerné wul Ousmane Sonko Ousmane Sonko ndig ginnaaw gi mooy metti il a des douleurs dans le dos donc forcément te loolu mi ngi koy mi dal na ko depuis bi mu nekkee xale ba tey donc bu fekkee ni dafa nar a faju je ne pense pas que béréb boobu la war a fajoo man sama me pose un problème donc finalement nee na laaj na soo oustasam oustasam ne ko béréb boobu mun nga fa dem bu fekkee ne faju rek la fa yóbbu eh ben c'est normal qu'on qu'on lui réponde de cette manière là parce que daf ku faju ku war a faju foo mënti dem xale bu jigéen bu naree accoucher des fois mën na góor mën na ko accoucher un gynécologue garçon donc ce n'est pas un problème mais mais mais mais mais doyen certes mun nañoo wax ne sax ñooñu nekk foofu la ci salon de beauté Sweet Beauty mhm. nekkoon ay euh, expert nekkoon ay euh, kinésithérapeute euh, seen xam-xam màcciwul ci wàllu boobu mhm. mais mun nañoo leen nangul ne aussi peut-être am nañ benn formation boo xam ne suivre nañ ko ngir mën a rek soulager kii di Ousmane Sonko aussi par rapport à son mal de dos aussi mais dans l'hypothèse où c'était vrai man je ne pense pas que ce genre de salon là ay spécialiste la ñu pour quelqu'un boo xam ne depuis pratiquement sa naissance dafa am ay problème d'eau pour man quelqu'un qui a un problème de dos depuis toute sa vie pratiquement ñu topp ko ci ay spécialistes topp ko ci mu mujjee dem ci yenn spécialistes yi euh, euh, il a parlé de du du, du médecin euh, comment dire libanais après a demaat ci beneen kiné spécialisé après le gars il est parti à l'étranger euh, après mu dem ci euh, euh, kii bérébu Soham Ward Soham Wardini j'allais dire Rose Wardini bi nekk ci suufu institut boobu nga xam ne pour ay massage ak yu y a des vrais spécialistes et que ndaw si moom médecin la avant d'être gynécologue donc ça peut paraître sérieux foofu mais bi mu demee nee na benn yoon la ko def ça lui a coûté deux cent mille francs il ne pouvait plus retourner ay moyens donc ne ko institut boobu baax na mais franchement hôpital Idrissa bu Grand Yoff mais foofu mais foofu ñooñu ils sont spécialisés ci yi demee noonu ci ay tànk yu damm ci ay problème mu yaram ci ay problème mu os affaire yu yàq mais quand même bu fekkee ne sax dafa metti ci yenn clinique yi nga xam ne ñi ngi Sénégal mais pourquoi Ousmane Sonko demul foofu. yow da nga jàpp ne Ousmane Sonko il a été léger par rapport à ça. moi je pense qu'il a été extrêmement léger et j'en suis j'en ai un peu honte j'en ai honte parce que je me dis que ni Ousmane Sonko ce n'est pas Aliou Sow Ousmane Sonko ce n'est pas monsieur X monsieur Y Ousmane Sonko c'est un monsieur qui a été quand même troisième aux élections présidentielles Ousmane Sonko c'est pratiquement le le le, le chef de l'opposition et je le je, je le dis souvent euh, à travers au travers de mes de mes de mes de mes, de interventions parce que c'est actuellement c'est le premier opposant au Sénégal c'est le chef de l'opposition Ousmane la République République Ousmane Sonko nan la mën a demee ci béréb yooyu ce n'est pas possible mais ces salons de massage là on sait ce qui s'y passe man waxuma dara dama dem c'est que dem bi dem bi man bi ma njëkkee dégg mais li ma njëkk xalaat mooy Ousmane Sonko mais. il a est-ce que est que dem na fa dëgg-dëgg man gëw moo ni dem na fa mais quand il a parlé je me suis dit oh ben finalement il a avoué que ni dem na fa mais lan la fa doon wut béréb yooyu du béréb pour loolu salon yooyu salon yooyu c'est du massage vivifiant. Et c'est du massage vivifiant. Massage pour, pour, pour, pour, pour, pour, relaxant et relaxant aussi, pour relaxer et pour vivifier le corps. C'est pour ça que. Mais nous défendre problème. Mais est-ce qu'il y a imaginé euh, Ndiabitei, mais quoi un problème de, depuis vingt 30 ans Mais ça n'a pas moins de problème. Mais ce n'est pas possible. ce n'est pas possible ku sonn mun na mun nañ salon boobu mun nga fa dem pour ñu pour ñu pour pour ñu xaw la relaxer pour ñu vivifier la corps et cetera mais pas pour defar defar la dos ku demoon bay sóoraale nan day dem France pour dem faju ji foofu dem bitim réew faju ji du salon boobu lay dem d' accord mais mais mais Aliou Sow bu ñu évacuer euh, paramètres yi yëpp nga xam ne euh, souligné ko ko par rapport euh, peut être Ousmane Sonko il a été un peu léger di fréquenter yenn salon de massage mun nañ ko nangul bénéfice du doute parce que dafa demoon juste pour soulager soulager son mal de dos mais est ce que aussi l' accusé de viol loolu nekk na loo xam ne aussi xel na xel mun na ko nangu. xam nga dama mos a wax ci télévision comme des fois damay def yenn intervention yi. Mm-hmm. dama mës a wax ci télévision ma ne Ousmane Sonko mooy on est dans un dans des pays d'Afrique. Mm-hmm. où gars la politique n'a pas de morale. Mm-hmm. les gens ils sont obligés dañuy rayante ci seen i biir ku si nekk boo mënee jekk sa morom ren di ko pour éliminer ko définitivement loolu da nga koy def donc moom comme il avait il était dans une bonne posture présidentiable moom dafa war a am un certain comportement du béréb yëpp la war a dem du ay salon la bëtel war a dem et puis au pire des pourquoi ñi koy maase du ñu ñëw ci këram fekk ko fa. Mhm. parce que ces masseurs la ou ces masseuses mais ils sont capables boo leen demander pour ñu ñëw sa kër pour masser la dinañ dinañ ko def comme ça il y a vos femmes qui vont surveiller tout si c'est si c'est vraiment utile et que vous n'avez pas le choix mais en ce moment là ces dames peuvent venir mais pourquoi ce soit vous qui vous déplaciez pour aller jusque là-bas mais imaginez les risques qu'il y a Ousmane Sonko mos naa ne ci sama yenn intervention yi ma ne mais Ousmane ma ne la yow bu ñu la joxee dix mille francs sax yow dix mille francs bu jógewul ci ci guichet. Mm-hmm. guichet guichet distributeur automatique yow waroo ko laal parce que mun nañ sax accusé de faux billet donc yow da nga war a def attention boo demee ci jàllo bi di jënd banaana jox ko dix mille francs bu la delloo ay billets da waroo ko laal parce que billets yooyu xamul sax des plans peuvent être mis en exergue pour te détruire donc yow da nga war a moytu yow yaa war nekk le premier à vous méfier Ousmane Sonko fii nii pour ce coup dafa daanu si dafa daanu dafa daanu quoi parce que foofu du woon jëmukaayam pour moom de sa trompe un petit Aliou Sow peut y parce que risque bi amul solo mais lui il est présidentiable mais imaginez mais vous vous compte ku bëgg jiite Sénégal yooyu dal la Sénégal mun na nekk benn erreur kese moom mu yàqal la définitivement pour votre vie politique pour votre avenir politique mais kon warul woon dem ci béréb yooyu kan moo ko bàyyi mu dem foofu ana ses accompagnants ses amis ses proches loolu est-ce que nañ ko. qu'est-ce qui a été à l'origine qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir aller dans ces endroits-là apparemment dem na fa plusieurs fois mm-hmm. parce que deal bi bu fekkee ne deal la bu ñu ko ko tegalee c'est parce que ñëw na fa plusieurs fois ils savent qu'il allait revenir mm-hmm. te doo xam te nee naa nguur affaire nguur en Afrique on sait ce qui se passe des fois dañu lay tegal ay affaire bu ñu la jaar bu ñu lay wut ay solution wut ay solution xamuñu lu ñuy def dañu réfléchir pour pour rekk pour daaneel la mu jaral leen lu nekk même teg ay millions ci taabal ji alors muy def loolu et puis au pire admettons njàpp que ça soit nécessaire que ça soit obligatoire que amul choix foofu rek la mën dem parce que moyen foofu la toll mais pourquoi woowul gars yi ñu ñëw mu yokk ci dix mille wala vingt mille. et l'heure et l'heure et l'heure moi ça me ça ça me prend la tête parce que dama ci ruus et j'en suis amer parce que je me dis mais waru foon dem quel que soit lu mën a am. quel que soit lu a am après parce que justice moo ko war a mais moom tànkam ci la war woon teg foofu parce que foofu du place ok d' accord vous êtes né en 74 ok d' accord vous êtes jeune ok d' vous avez été inspecteur des impôts ok d' vous avez de l' ok d' vous avez des Sénégalais pratiquement un million qui sont derrière vous surtout des jeunes de moins de 35 ans donc vous avez l'avenir avec vous vous devriez perpétuellement que bokkul. Celui qui a le même âge que Ousmane Sonko et qui, est un simple Sénégalais lambda, qui va à son travail, qui revient, même s'il est cadre dans, ce pays, eh il, il a... a il ne peut pas être comme Ousmane Sonko. Ce n'est pas possible. Il peut prendre certains risques, mais pas Ousmane. Mhm. Il a déconné. Mm -hmm. Il a déconné. Euh,